waaw ñu ngi leen di fay bu baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di leen masaw bu baax a baax a baax a baax. Mhm. waaw dellu di santaat yàlla rek waaw di santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax. waaw situation yi nag euh, daanaka du Kaolack rek lañ commencé dund situation parce que fii région de Dakar li ñu doon séntu fii si région de Dakar ñun gisuñu ko parce que suñu regroupement baaxul suñu wàccaay baaxul néew ñu daal say conditions yu baax ñun ñoo nañ drapeau chef de l'État mais defe naa dañoo ñëw nii rek pour participer nii waaw kenn ku ne kenn ku nekk waaj nga nag mais dañoo ñëw rek pour participer nii. maanaam première regroupement suñu regroupement amuñu ay aide kenn jàppalewuñu équipe bi Dakar Dakar gépp dañu seetaan Dakar gépp dañu seetaan suñu regroupement amoon nañ ñaari booy yu wàññi poids xam nga seen alimentation baaxul lu ñu doon lekk kenn xamul seen régime alimentaire dara baaxu si parce que booy mënoo di wàññi poids nga ne doo lekk dara doo ndékki doo añ doo reer xam nga mënoo di wàññi pois heure añ bu jotee ñu teggi ñam bi wala carotte mbaa supame jox la. mais da ngay wàññi poids ba pare bëgg a ñëwaat bëgg a ñëw compétition bi nekk en forme loolu mënul nekk waaw te kenn ki si nekk wàññi woo benn po wàññi woo benn kilo wàññi woo ñaari kilo ay kilos yu bari nga doon wàññi waaw. coono lañ ñëwee te Dakar seul Gris Bordeaux moo ñu fekk foofu yekki cent mille francs may ñu xoolal Dakar li mu li mu ni mu réyee ak ah, autorités yi autorités yi nekk Dakar yëpp seul moo ñu fekk foofu yekki cent mille francs may ñu ba pare bu mu ñëwee gis na condition yi ñu nekkee. waaw moom da li mu njëkk a def mooy naxaru loolu noonu waaw Gris Bordeaux waaw jo technique waaw moom tamit dañ koy gërëm bu baax parce que def na si dooleem waaw Yékini ne quatre-vingt-dix mille may ñu waaw jàpp na ci waaw. déedéet euh, loolu ndakaaru booy ñaa na ci booy ñaa waaw jàpp booy ñaa booy ñaa booy ñaa de fils de Dégol waaw jàpp na ci waaw dooleem ñëw na yëkki na cinquante mille franc jox ñu comprendre nga euh, du jàjjeeku fekk nañu groupement may ñu ay ndox ak boisson waaw daanaka bu ñu duggee avant ñu duggee kaw la sax loolu jeex na waaw maanaam maanaam maanaam dañ dañ dañu vécu ay ay ay ay ay yoo xamante nii mënuñoo comprendre làmb la nag parce que ñu naan suñuy naataangoo ñoo fi nekk ñu ñu daan làmb la war nañu mën a daan parce que dañu ñëw pour làmbise comprendre que dañu daan dañ daan dem di def ay résultat muy neex kon daan nañ dañuy sant yàlla mais lu toll ni drapeau chef de l'état ñu représente région de Dakar ñun ak Dakar autorités yi fa nekk yëpp bis bi ñu indi ñun mini bis bi ñu indi mënul yëf sax suñu bagage ñun nii bisu 15 places la. te kenn ku nekk am nga normalement deux accompagnants suñuy accompagnants dañ leen paasal ñu ñëw fekk ñu fii comprendre nga ba pare bis bi ale lañ ñu ko àll retour ñu ñooy sol gasoil dem. yéen ñuy euh, ci gàttal ñun dañoo amee sax bor maanaam parce que suñuy propre moyen la ñuy demee dañu lebal sept cent cinquante mille si la booy doon lekk. ci lañ leen jékki xaalis benn somme bi kenn ku nekk cent mille franc jox la nga wàcc te boobu dernière semaine u làmb ji la kenn ku nekk cent mille franc nga wàcc xam nga xaalis bi ñu defaree blouson blouson yi ñu sol ni équipement yi tamit mooy loolu dañu ko lebal dañu lebal sept cent cinquante mille bor boobu noonu ñu ngi koy fay matagul li ñu giri li ñu giri Bordeaux li ñu giri Bordeaux may ñun bëri ak encadrement bi li ñu giri Bordeaux may géotechnique may ñu ko Boy Niang may ñu ko comprendre nga loolu lañuy dajale dugal si bor bi euh, te daanaka defe naa boor bi des na ba léegi amaguñu lu ñu ko fayee. si. am nañ sati am nañ satisfaction amoon nañ yéene indi euh, Dakar drapeau bi amoon nañ ko yéene parce que boo xoolee équipe bii équipe bii nii. amul ci compétition bi waaw équipe bi ngay gis nii amul compétition bi équipe bi mën naa ne ñu ñooy favori numéro un parce que suñu 66 ba suñu 120 kilos ñun ñëpp kenn ku si nekk catégorie bi ngay bëree favori nga fa waaw. mais Zambala Zambala man dinaa dinaa ñëw tuuti ci yow. Mhm. en tant que capitaine. nga gis xale yi ñu topp sa ginnaaw. Mhm. wax nga ko ci leeral ne xale yu ci bari yow yaa leen woo ñu. Mhm. bi nga ñëwee gisoo condition yi baaxul. pourquoi pas nga jël xale yi ànd ak ñoom génn. waaw loolu tamit dëgg la mais xam nga man maay capitaine bu ma waxee nañ ma déggal moo tax ma bëggoon ñu jaayante ñu jaayante fexe indi drapeau bi indi drapeau bi dakaar bu ñu ñëwee li nekk suñuy dënd ñun ñëpp ñu wax ko. loolu moo nekkoon suñu bébét te amoon nañ si yaakaar man man man drapeau chef de l'État bi maanaam diggante démb ak tey li ma si feree sama xaalis sama propre moyen man mat na deux cent mille. man kese kese kese laa la wax sans autant que yeneen gars yi man kese li ma si frais man ak booy yi amaana ndox ndox bi ñuy naan nii nii nii nii sax ñun ñoo ko jëndal suñu bopp. déedéet xam nga xam nga dafa am lu am gis bi ñu nee cëpp Kaolack 13h lañ fi ñëw 13h ñu ngi fekk biir Kaolack le jeudi parce que ñun bis bi ñu ñu àll euh, bis bi ñu àll ñu ngi ko jël euh, presque 10h. treize heures egg si kaw Kaolack treize heures ba seize heures ñu nar a tardé amuñu woon sax maanaam fu ñu loger amuñu fu ñu loger parce que ñu ngi doon wër-wër loo duñu wër wër loo biir Kaolack ba ñu nar a tardé pesage ñu bàyyi fa loolu àndax bis bi dem pesé ji ba pare bu ñu ñëwee 17 heures presque 18 heures la ñuy door am logement la ñuy door a am fu ñu indi nii waaw. maa ngi delloo ziar Paul di la nuyu di ziar Baye Mm. waaw instant yi maa ngi wax ne maa ngi sant yàlla rek na ma ñëpp ñaanal te xam ne xëy na làmb ak coow ñoo ànd te amaana gaañu naa ci làmb ji gaañu boo xamante ni yëguma ko ndax maanaam ki ma dóor xaw ma fu mu jóge xaw ma kan la ba tey nit ñee naan ma diw la diw la mais ba nii man xaw ma kan la ndax man fi ma dóoree fi laa daanoo te kii laa doon jël si moo doon wax ak Libidor ma ñu du jàpp loxo pour ne ko kaa ñu dem ci loolu noonu gëstuwaatuma yëguma sama cumukaay kon man xaw ma ku ma dóor yàlla rek moo tax may wax ki ma dóor xëy na nag ku ma jàppal en la wala amaana coow li mu ñëw dóor ma te man xeexu ma mhm. mais nag maa ngi sant yàlla comme que maa ngi koy nettali rek. c'est parce que man bi ma dóoree man xamatuma fu ma ne dama xam ci sappoori fi laa yeewoo bi ma yeewoo man leen man lan laay def fii ñu ni man nii dañ la dóor man ne kan moom ma dóor ak lan laa def comme ma ne ana giro ana laat ñu ma àndal ndeke ñoom dañ doon daw di xeex police yi jàpp na leen ba yóbbu leen police Kaolack léegi après si laa ximaliku nag bi ma ximalikoo nag toog foofu sappoor teg ma foofu ma toog ay ñaata baaraam la talal genre affaire yooyu après si laa toog di jooy quoi ndax man xaw ma lu ma indi foofu ba tey ndax man xeexuma te jàppoon naa ne drapeau chef amul xeex te jàpp naa ne am na organisation bu doon mbapat la sax mbapatu séeréer ñu dóor ma man yaa ah, man dañ ma dóor mais drapeau chef de jàppoon naa ne am na organisation boo xamante ne waa Thiès waruñu sañ a taxaw dóor mbër buy bëree te gisul leen. parce que parce que ma yow gi nga sama lex bi nii gis nga nu mu mel ni fii lañ ma dóor ci manto gis nga nu mu neewee nii sama siddi bi lépp da doon metti ak sama bopp démb dama wàccu deret fii ñëpp mën nañ ma seede Malick Ngom arbitre démb fii la ñëw di jooy démb dama wàccu deret ba sonn parce que kooku moo woon na ma rey parce que man deewoon naa ndax xamatu woon Kaolack laa nekk wala dakaar waaw c'est parce que man su ma ñëwee dama ne hôpital parce que ba nii nii sama baat day metti su ma xaaxandikoo dëgg damay génne deret parce que coup bi ma dóor moo métti ndax gisuma ko yëguma ko xaw ma fu mu jóge man dama jekk ba yàgg rek ximbalikoo ci ay saapoor parce que coow andiwu ma woon kii laa doon jël si parce que daan nañ ñu ñàkk nañ demi final kaa ñu dem ñu xëccoo ji individuel yi laa doon ko wax si ma koy waxee loolu man yëggalewu ma ki ma dóor c'est parce que ñun ci kanam waa Thiès lañ taxaw suñu cumikaay dafa soree ak waa Thiès yi te ñoom ñoo nu wër ma dóoree nag ñii ne ma ki nga bëreel moo la dóor ñii ne ku sol kaba dóor ñii ne El Hadj Ndiaye bi nga bëreel ku nekk a ngi wax mais damay xam ne man bu dee El Hadj Ndiaye moo ma dóor rek ba mu leer ma ma gis image ne El dóor xam naa ni moom xam naa day bàyyi bëre ndax làmb ñu mu tas day toj ndax man du kenn du ma dóor ma lay baax bu fekkee damaa bëri aral ñu dóor ma ma daanu damay muñ ndax damaa lekk avance mais ñëwuma woon pour bëre dóor waa dama ñëwoon pour mba pour compétir si. Mhm. ñu parce que gisoo aada loolu c'est normal nga bañ ko gis. xam nga taxam loolu am. Hmm. li la Samba laa wax nii. billaay wala lu fi bàyyi ko gis nga gis nga drapeau man dama toogoon ne duma ko demati man du ma nëbbu sam mooy wax mais amaana tey si tey li xew nii ba ma ñëw Malick Ngom sama papa man papa koy wax dama koo bëgg. lu ma wax dama koy def te 100 kilos bi ñu koy bëre maa leen man parce que 120 kilos yi laay daan ñi nan 120 kilos tey ñoom ñoo jël poids lourd bi nii ñooy compétir 120 man ñooñu laay bëreel kon 100 kilos jaaxaluma ci sax ma la mais nekkuma ci làmb ji bàyyi jili xoolal gars bi mu dóor xool lu ma jóge xoolal sama tànk bi nu mu mel man dama doon dee man naa sant yàlla bu ma ñibbee sunu kër xoolal li ma daal xalu safara man dama naroon dee man lépp lépp ci ay gaañu gaañu lii lépp dañ ma gaañ doo xam ay nit yu soxor yoo xamante ne yow tey xamoo loo leen def mais àdduna moom jaral na leen lii xamal ma la man ma ñëw gaañu di muñ di bëre ba lii nga taxawaat ñëw ñu dóor a dóor boo xamante ne xamoo ku la dóor nga xëm te te nekkuñ ci dara suñu préparation dafa des. waaw c'est parce que ñii ñu ngi naan kii moo la dóor ñi naan kee moo la dóor mais ñoom ñi indi ñoom na nee nañ bind nañ seen rapport def nañ li ñu war a def mais ñoom ñu ngi leen di déglu mais dañu xam ne tey rek du bis tey rek du bis man démb bi ma toog booy dem bëri ñëpp ñàkk individuel dama am lu ma naqari trop mais dama toog muñ xam ne àdduna noonu la ñoom dañoo war a ñàkk ñàkk mais gis nga nu lu ñëwee fii nii barke Seydouna Muhammad keneen ko ñëwoon fii nii góor yàlla goo fi indi woon lii booy daj lay daj daanu parce que ñii ñëpp am jom ñii ñëpp ay daan seeni mag. ñun ñii ñëpp dañuy daan suñuy mag mais dañoo ñëw fii li war a am amuñu ko avant ñuy départ dakaar laa xëy gis ñu jox gaay mburu kase man leen suñu kër doo fa ndekkee mburu kase gedd ñibbi man maa ko wax ñibbi ñoom mën nañ ma seede man nëbatuwuma de parce que man da am naa lu ma lekk maa ngi sant yàlla man leen du ma ndekkee mburu kase dem ñibbi isa ma la wax booy nekkuñ ci dara équipe bu Dakar amul ku ñu gën a dëgër amul aada Dieng mbër buy taxaw fii ci àdduna Sénégal fii ñu la yàgg Ada Dieng ci sa du jóg amul parce que man suuraale wu ma mbër te du ma areeral kenn mais nag boo ñëwee ba ci làmb xam ne nekkatoo da ngay xam ne làmb moo demee noonu tey da nekk suba doo nekk bu la jekkoo nag da ngay muñ sa gis nga nii nga nu fekkee ne gis nga booy ñaata nit na ñu nekk ci kaw de yenn gars yi ci karaw yi fii la ñuy fanaan di ko muñ xam nga lañuy wax nañ wax li am rek dañ ñàkk nañ ñànki wuñ de mais da ngeen ñoo laaj dañuy wax dëgg bi am. ñu bañ a xam parce que turu Dakar moo rëy Dakar mbër yëpp dañu ñaan yàlla présenté Dakar mais bu dee nii la ñu présenté Dakar ku présenté Dakar barke Seydouna Mohamed boo moytu la ngay dee parce que man baa jëlee sama xaalis laa jël doon ko def ci làmb ji parce que xam naa ne drapeau chef de l'État liggéeyante kese la parce que parce que chaque jour rek di nga xam ki nga war a taseel bala ngaa nelaw di nga ko xam loolu laa xamoon moo tax man dama ci teeloon sonn moo tax ma sant yàlla démb booy bañ tooy fi ñu may kaañoo man leen dóor nañ ma ma daan mais di ngeen bëri ay defet noonu laa leen ko waxee man leen maa ngi ëpp chance man mi daanu bëreetuma mais di ngeen daanu ba sonn gisuma ndam mais gisuma ndam sambalaa mi xoolal ñu ko daan day ñëw tiit dañ koy daan mu ñëw ba ci mu kaw taxaw tiit xamul lu ko daan te xoolal sambalaa kan mooy sambalaa est que du comme ñu daan ko mu def yëfu mbër mais te du yow c'est la première fois nga soog a seetaan ñaata nga ko seeyaat mu jël ay ay ay tournois kan moo daan sàmbala après kan moo daan sàmbala premier de Fodé booy bi de Kolda Sadio Balde xool loolu kan moo daan sàmbala Cheikh Ndiaye mbëru tànk mbër buy def poids la se kooku kooku la waroon bëri 100 kilos seen 120 seen 100 100 100 kilos bi ñëwul mu yéeg 120 moo daan zam xool loolu man kan moo ma daan Ablaye Mbodj. man de barki alxuraan kontaanu ma te xam naa ni. gëm naa ne nag dinaa dem dara dinaa dem xëy na équipe nationale mais drapeau chef de l'État man aada man ngeen mboote di ko bëree ji non gëm man yàlla bind na ku may yóbbooti. lu leer mooy la mais man ba may ñëw lu leer lañ ma waxoon mais damaa ne mbëcc bi mootu maa daw man dañ maa dugal di comme ñu wax la rek nga nangu ñu proposé laay affaire nga d'accord sa xol sedd nga ni waaye affaire bi parce que man woo nañ ma ni ma Zambala lañ jël Tony Bas ñëpp xam naa ne booy man yii groupe boobu baax na. jaadu droite. boroo kër bi. maa ñu lay delloo siyaar ginnaaw bu ñu sant yàlla julli sant salaa salaam di nuyu ñu teew fii yëpp. gars yi lutteurs yi ak staff bi gars yi nga xam ñu ngi woon si ginnaaw mbër yi tamit depuis boobu ba tey bi fi ñëwee ba tey dañuy daj ay coono ndeysaan ñuy dem di daan di ñëw ñuy gën a encouragé saa buñ sëggee di jooy gars yi gën a encouragé xam nga ñun buñ siggee xool ñu mën a siggee xool leen ndax xam nañ ni yaa quelque chose quoi bëggee ñu ko woon nii quoi mais ñu ngi leen di ziare bu baax a baax li def naa na pël bàyyi jili ak cameraman bi bu baax. waaw c'est la première fois mu ñëw drapeau chef de maa ngi doog a participer si drapeau chef de hmm. non non du ma bokk de. mbéjeel bi xanaa bis bu ne ñu wax la loo xam ne doo gis parce que tamit ku gis làmb xam ni am na lu mu àndal mais nag euh, dañuy sant yàlla bu baax a baax parce que tamit nit moom booy def da ngay def li nga toll rek mais suba moom yàlla moo xam ni muy programmé quoi xam nga te dama gëm ni ay champion rek ñoo bi nekk Sambala mi champion la Ada Boy Bawol champion la ba champion la Serigne 66 kilo bi tamit champion la mais jouru làmb ji bi ñu ñëwee suñ ba bëri suñ premier tour deuxième tour ba génne suñ troisième raison si lañ perte làmb ji ñun ñëpp. ci lañ perte ñu xam ne ñun nekkatuñ dañoo comprendre wul bu demee ba gars yi ku si ne ku bëre boo ñëwee da ngay da boo ko nee jàkk xam ni kii yaa quelque chose am na lu dugg si affaire mais nag dañuy santaat yàlla bu baax a baax comme a baax waaw mën na ko parce que làmb ji dañu teel a wax ne ñun làmb day am coow laajal kii. Mm-hmm. bi ñuy départ. paa yi coow nañu ñun ba wàññi sunu cumukaay en attendant. Mm-hmm. ñii ñii paas cumukaay ñii paas ñëw. Mm-hmm. yaa ngi dégg lu ma la wax ci biir làmb ci biir làmb ñuy coowaat ak ñun. ñun gis nga ñun bi ñu dóoree sax ñun man ak kii man bi ma dóoree la kii doo ko commencé xeex. est-ce que yaa ngi comprendre lu ma la mais coow bi ñun xam nañ ko bu yàgg ñoom xam nañ ko mais xamal la ñu xamuñ ànd ak nit ku gëmul mystique dafa met nit ko boo xam ne hmm. non yooyu amul eh, dina làkki tubaab ñu nu tubaab olof lañ dégg. waaw comme li aada war rek parce que tamit euh, boo àndee ko xamul làmb da ngay sonnam parce que tamit làmb moom ñëpp xam na ni lim laaj ak lim laajul tey mën nga dem ñu leen làmb ji boo coowee rek ngay ñàkk. ngay coow ñàkk ka mbër mën nga dem tamit ñu la ni boo coowee ak moom da gañe mbër mi lu mu lay jaral lu ne dina ko jaral dinaa coow ak yow ma leeral ni sàmbalaa mi bu ma ko ak man ma gañe làmba damay ñëw cookaase boobu pour mën a gañe mais nag ñun suñu biir la ñu wax ni di ngeen coow te bu coow amee mën ngeen a ñàkk lu bëree bëri li ngeen defaroon lu bëri mën ngeen ko ñàkk amaana nag instant bi ñun mbëri doon nañ daw boo xoolee champion bi dafa kaas ba taay cinq minutes ku nar a wax mu ne eh, bàyyi leen cooli mais teewul instant bi dañuy ñëw parfois dañuy ñëw fekk benn mbuusu benn mbuus bu tegu rek ñu ñëw xuloo si seega seeb xam ay mbuus <laughs> xam lu wér wallaay <laughs> maanaam li naqari lépp waruñu mënuñu kaa wax quoi parce que parce que aada aada li mu wax wax na dëgg de barki Seydina Mohamed laa la làmb ji ay champion rek ñoo ñëw fii te Dakar fu bëri la man gis naa xaalis boo xamante ni manoon na maa dem beneen région ñaari région woon nañ ma barki alxuraan te ñoom ñaar ñëpp ñoo finaalu mais nag booy xool booy xool danga nga naa Tony bëggul làmb quoi ndax man yaakaar naa ni réseau yi ma topp bari na dama mujj ba sama portable bi damay mujj di ko fay wala may gis appel du ma rusu mais man gor laa man gis nga fu ma xaalis fekk wala may bàyyi. en plus di remercier Malick Ngom Malick ñu ngi koy remercier bu baax parce que gis nañ taxawaayam biñ demee ba amul lu ñu lekk premier jour bi ban heure lañ dékki une heure. premier jour bi une la lañ dékki une heure amul ñu yi ñëpp taxaw ñu entraîné na ñoo jógloo ñu sept ñu entraîné na ba dix heures. ba 10 heures amul ñu lekk barke arxuraanu karim xam nga ñu Malick ñëw Malick ñëw li déggalool dem leb xaalisam moom moo leb xaalis ñëw jox ko gars pour ñu am lu ñu lekk ñu ni Dakar tey ana ana politiciens ya fa nekk ana gars yi ministères ya fa nekk ak xam nga maire ya nga xam ne ñu nga fa xam nga kon tamit géejewaay xam nga tey jii ñun bu ñàkkee tamit lan la ñuy wax duñ wax Tony moo ñàkk de wala Zambala wala Aada de Dakar moo ñàkk. kon tamit ñun dañuy wax gars yi nga xam ne dakaar ñu bàyyi xel xam ne ñun dañoo soloon seen drapeau di leen xeexali ñun dañoo ñëwoon pour xare mais xare bi dañoo gis ñi àndaloon ak ñi doon xeexal ñëpp dañoo wàññi ginnaaw du mooyu te loolu dafa ñaw te ñun ah non non gisuma loolu parce tamit comme li kii wax rek ay conditions yu leer lañ ma waxoon man bi ma woowee dañ ma limal ay champion ni ma boobu 66 kilo bi xaw ma ko mais bi ma nee bas bu mbuur ma xam ni champion la ñu ma ni Ada Boy Bawol ak sambala ma ni ah équipe boobu de boo amee jàppale tuuti dina dem quoi kon tamit dinaa jéem a dina participer billaay wallaay watalaay gis naa xaalis yaakaar naa am na ñu mën a témoin fii am na ñu ma woo téléphone mimti fois pour ma ñëwal leen mais dama leen ni du ma jaay sama ngor ndax Dakar amu fa benn dërëm tey bi ñuy jox préparation pour ñu mar war a war a ñëw dem compétir est ay deux jours xaw ma trois jours ñu doog laa jox ku ne sa xaalis fekk na ñun liñ des si drapeau Set Welta joxuñu sa xaaj bi liñ si des joxuñu sa xaaj mais et puis tamit may ñu ñu jàmma jàmm ñun buñ mënoon am jàmm sax garaawul quoi dañuy def leen wala benn booy toog ne ñu ñëw gëdd la xam nga menacé la def la lu ne xam nga loolu nekk loo xam ne lu ñu métti suñu xol la ñun kon bu ñu amee lu ñu métti dëgg la ñu wax ko quoi ñu kaas ko comme waa Dakar maanaam nañu xoolaat staff bi tamit amaana nag li ñu dund ak ñun da xamaana xam nañ wala xamuñu mais nag manqué nañ xaalis amuñ ku leen jàppale di remercier soo technique soo technique moom it gis nañ ñëw na taxawaay yéene bi moom bu du woon dara maam conseil yi ñu doon conseil keroog rek dafa doy sëkk Gris bi ñëwee keroog bi mu ñu fekkee fi ñu doon regroupement dafa am lu ko naqari première kàddoom lan ngeen di def fii la wax fii fii fii du regroupement fii c'est pas normal Gris première carte doom loolu la jëkk ko parce que xam nga ni lii du yoon dafa découragé bi mu ñëwee man moom xam na ni du yoon mais mënu si dara mais mënu si dara. Gris mënu si dara parce que tamit li mu si man mooy yëkkati na cent mille am jox ñu ko ñaati mbër ñaati lutteurs ñoo nekk Dakar dëkk Dakar gisuñu si kenn boo ñaata tamit ñu ngi koy remercier dégg naa ñëw na xam nga kon tamit ñaati lutteurs ak ñaati politiciens ñaati maire ñoo ne Dakar. te jàppuñu si. donc bu dul dara ñun lekk wuñ doon lekk lekk dañoo am problème lekk fii ban fi ñëwee ba tey mosuñoo lekk lekk bu baax xool imagineel yow yow imagineel tey ñu jóge Dakar 11h wàcc 6h da fii nii. ñun fu ne yóbbu ñëw ay auberge fu ne ñun fi ñu dal nii sax auberge la auberge barki alxuraan kene nañu wax lépp ñun li ñu métti dafa dafa métti mu gàllaaju mbër am na loo xam ànduloo ak moom. xam nga ñun am na loo xam ne àndul galaaju mbër barki Seydina Mohamed bis bu ñëwee fii dañoo am luñ ñaxare quoi kon tamit ñu ngi remercier Malick Ngom bu baax a baax a baax di ziar waa war jaxal bu baax tamit. salaamaaleykum mbooloo maa ngi nuyu ñëpp ah. ginnaaw ma sant yàlla ginnaaw ma sant yàlla julli si yéen salaam salaam sant sama ñaari waajur sant sama sëriñ Baye Abdou Karim Makarim Ala nuyu waa waa Kaolack yëpp ah man ma wàcc wàcc jarul yu bëri quoi parce que mooy loolu demal Dakar moom xam demal Dakar moom demal pour moo gën pour. Hmm. bi mooy troisième fois. demal naa Kolda. Hmm. demal naa Thiès. Hmm. parce que bëgg xamal laam boo ko bëggee. day jar. tey man comme li kii wax rek sa at gars yi may woo di ma so di da nga proposé ren Thiès woo na ma ma ne ko non bëriwuma daaw si parce que daaw man maa jël sama équipe gars yi yóbbuwuñu ma Thiès ma man bàyyi naa daaw hmm. hmm. naa respecté wu hmm. sa adversaire jiiri man maa ngi nekkoon quatre-vingt-dix kilos. laay examen la. gars yi woo ma un mois maa ngi wàññi poids un mois seize jours. waa ngi naa dem ma 19 kilos. lekk sax su ma ko bëggee laay examen damay tëb guddi gi tëb stade bi tëb laay booy dem Pikine génn ji lekk ñëwaat damay entraînement suba si du lekk li ngoom la ñu gën ne la. billaahi mburu yi gars yi lekk ñoom Sambala ñoo xam ñoo yokk yokk poids dañuy gën a mburu kese doo am soga doo bër. gaz am gaz amuñu ko gaz gaz gaz amuñu ko gaz. amuñu dara. non man moom vraiment parler du du ma ne bàyyi naa Dado Sélta nekkul man Dakar Dakar moom may bàyyiloo Dado Sélta non non jamais man daal wàññi poids laa bàyyi. demal Dakar demal Pout mu ma gënal parce que Dakar loo wax ñu Dakar Dakar Dakar Dakar te Dakar bakk si Babou Dakar du cent ñun si yoon ku si nekk di dinañoo jox 500000 xaw ma ne 100000 500000 parce que ku mel ni Zambala nga jël ko tekk Dakar aara booy bawal tooni kër mbir ngel jon hmm? jon teraanga ay champion yoo xamante ne kenn mënu leen si làmb amuñu amu si làmb làmb amul lu mu si amul barke suñu baam ma làmb damaa teral billahi wargi daa bi damaa bàyyi làmb damaa bàyyi dem géej ndax lamb kan tey xam nga boo jëm boo jëlee ay champion yu mel ni ñoom Zambala ñoom Tooni nee na jox teg si ay conditions yu leer mais man xoolal ma nekk Dakar deux semaines billaahi du ma ndékki du ma añ du ma mais nag lépp su ma koy def xam rek lu nekk Malick mali arbitre moo tax parce que Malick xam nga moo nekk ni ko xamante ne baax la hmm. mais costu yi moom vraiment pare hmm? amuñ seen fay waaw parce que parce que parce que Dakar lépp Dakar moo ngi seetaan waaw. Hmm. nit boo ko tanewul nag mënoo koo dimbali maa leen di de leen di bu baax leen jox seen wàccuwaay euh, gars yi wax nañ affaire bi yëpp ni demee donc ñun amatuñu liñ si wax li ñu wax yëpp noonu la demee man maa doon compétir soixante six kilos waaw euh, aussi wàññi poids bi def ñëw déranger trop parce que yàgg nañoo wàññi ba koor gi di am quinze jours ba léegi dañuy wàññi poids. man wàññi naa neuf kilos laa wàññi soixante dix sept laa woon di wàññi ba soixante six métti na comme li Bas wax alimentation bi bu ñuy wàññi dara baaxu si doo ndekki doo añ reer mën ngaa ñam tuuti salade ay dangay waaru quoi billaahi muy loolu mais nag sant yàlla bu baax lépp daal moom nañ ko dégg ci loxol yàlla quoi xam ne affaire bi moom boo bu demee nii rek Malick moo tax waa parce que grand bu baax la billaa wala wa taala grand bu baax la ñoo ngi koy sant di ko gërëm bu baax billaay amuñu fayam waaw parce que jàpp na si bu baax aussi donc amatuñu lu ñu wax parce que gars yi li fi nekk yëpp wax nañ ko moom vraiment waaw maa ngi leen di ziare bu baax ñaata no maa ngi doog a compétir de l'état waaw bu ñu ma wootee ah néew ma ne du ma demati chef de de mais dinaa si dem ay conditions yu leer waaw te du ma du wàññi poids aussi wàññi poids moom bàyyi naa ko waaw.